xaatim déggoo buy jaar ci diggante ma réew yi wàññi diir bi nga xam ne nii moom la ñuy nekk ci diggante yoon ak tax ba ñi nga xam ne ni ñooy indi seen xaalis ci biir réew mi ngir investir woy di ko def tribunaux de commerce yi xalaat beneen anam bi nga xam ne nii moom la ñuy lijjantee jafe-jafe yi nga xam ne nii moom mooy faral di am. vous savez dëkk bi y a de très am na ay notaires yu baax am na ay experts comptables yu baax am na ay magistrats yu baax bi. pour développer fi médiation te bu ko fi développer Sénégal mën na nekk une place de la médiation. waxtaan ba déggoo doon li nga xam ne ni jamonoy maam daanoon nañ ci jaar ngir gën a mën a rataxal diggante yi loolu day firndeel ni dugalaat ko ci anam gi ñuy àttee dina amal njëriñ tribunal bu commerce waaye tamit banque yi société d'assurance yi acteurs maritimes ak portuaires yi ak yeneen acteurs yi nga xam ne ni ñoom ñu yëngatu ci wàllum koom bi ci biir réew mi. yenn dossiers ñu mu wàññi déjà dossiers yi ñuy àtte ñu mën a concentrer si suñu liggéey principalement léegi pour euh, yeneen acteur yi ñu gaaw a am décision boo xam ne du leen sonal décision boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko déggoo. waaye balaa loolee mën a antu faaw rek ñi nga xam ne ni ñoom ñooy liggéey ci tribunaux yi ñu mën leen tàggat ci boobule wàll. ñu ngi koy def di wan nit ñi yoon mooy principe yi noonu la ko loi bi organisé ak nan la ñuy mënee une médiation. di di di former nit yi waaw mais bu ñu continuer nii jàpp naa ne dana ñu yegg ay bënn moment bi nga xam ne dinañ am une masse critique de médiateurs yoo xam ne danañu mën a animer euh, dispositif bi. mu wute lool ak na nga xam ne ni moom la ñuy àttee ci kanamu yoon waxtaan déggoo dafa aajo ci ñaar ñi nga xam ne ni ñoom ñoo sëkk mbir mi ku nekk mën a nangu anam bi nga xam ne nii moom la ñuy lijjantee mbir mi muy mbir moo xam ne nii day gën a rataxal diggante nit ñi rawatina ñi nga xam ne ni. ñoo bokk ci fànn bi ñuy liggéey